ak salaamaaleykum waa Gol maa ngi leen di nuyu di wax ne sama xol sedd na Sénégal fii mu toll nii fépp fu ma dem dinaa ko wax dinaa ko wax dinaa ko waxaat sénégalais fi nekk nii mënatuñoo xaar li nga xam ne dafa jot dafa jot ne kat mooy lan mooy il faut ñu wàññi location yi il faut ñu wàññi ceeb bi il faut ñu wàññi diw gi il faut ñu wàññi suukar bi il faut que ñu wàññi dundu gi il faut que ñu wàññi dundu gi il faut que ñu wàññi dundu gi bu ma dem ci Sénégal lañ may wax mooy Malick Gakou yow yaay président xale yi yaay président jigéen ñi lan moo tax ñuy wax loolu parce que xam nañ ne candidat yi fi nekk yëpp candidat yi fi nekk yëpp amul kenn koo xam ne nii li ma defal ndaw Sénégal def ko ko amul kenn koo xam ne nii li ma xëyal ndaw Sénégal xëyal nga leen ko amul kenn koo xam ne nii fi ma ànd ak xale yi Sénégal àndal nga leen ko amul kenn koo xam ne nii li ma jëriñ xale yi Sénégal jëriñ nga leen ko waaye jëriñ xale Sénégal mooy lan jëriñ xale yu Sénégal mooy lan mooy tabax fi ay usines mooy industrialisation de notre économie bu ñu industrialiser moderniser l' agriculture bu ñu industrialiser moderniser la pêche bu ñu ag bu ñu moderniser l'agriculture bu ñu moderniser l' ensemble du secteur primaire je crois que le Sénégal dina am assez d'employabilité pour permettre à tous les jeunes de travailler le travail le travail le travail le travail c'est ce que réclame la jeunesse je voudrais dire à la jeunesse du Sénégal bu neexee yàlla le 24 mars bu de ma falee ma jiite réew mi dinaa fexe ba le taux de chômage soit pratiquement anéanti dinaa fexe aussi ba chaque année ñu créer au minimum un million d'emplois pour permettre de résorber de manière définitive le chômage ndaxte la jeunesse de notre pays vous incarnez l'avenir la jeunesse de notre pays vous incarnez le demain du Sénégal si la jeunesse ne travaille pas si les jeunes ngeen continuer di sonn bu ngeen continuer di am leen liggéey bu ngeen continuer di jàngle dëkk bi ñu dox taf dëkk bi doxul famille bi doxul xale yu Sénégal ñoo ko mën a doxal yéen yéen a moom seen dëkk yéen moom ëllëgu Sénégal kon jàppale xale yu Sénégal mooy li nga xam ne nii moom laa bu neexee yàlla le 24 mars 2024 bu ngeen ma dinaa fexe ba réew mi am liggéey dinaa fexe ba réew mi am liggéey dinaa fexe ba réew mi am liggéey xale yi am liggéey xale yi am liggéey am naataange jàpp ci réew mi Sénégal jëm kanam